téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média di ci am nag bànneex bu mag saa bu ñu xamee ne rek yéen a ngi suivre sunu ay programme muy seen programme nuyu nañu bu baax kilifa diine yi ak kilifa aada yi du ñu fàtte mukk xalifa généraux yi di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér daa dee bàyyi xel malade yi nga xam ne ñoo nekk ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi na yàlla wéral leen te bañ a tëral kenn bu boobaa itam dinañu dugg ci prison yi ndax ku nekk ci àdduna di nga ñam ci yi fii am yi fi am mooy les hauts et les bas de la vie évidemment ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla fan yu dàq yu ngeen nekk donte fan bu ñu yàlla may rek dañ cay sant yàlla ñu ngi fàttaliku bu baax ñu ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggal sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ko waxee bu ne sunu xel day dem ci sunuy wasila sunuy waajur yal na yàlla taas ñu ci seen bark may wax salaamaaleykum doy ban di ko wax semaine u jàmm macha allah na France bisimilah baal. jaajëf ñu ngi lay ñu ngi kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdou Khadre. di ko ñaanu mu yàgg fi lool te wér. amiin ko mboolem mbokkum jullit yeeg sunu xalif ba sëriñ Mansour Cissé. ñëpp ñu ngi leen ñaanal jàmm tey jaal presse Sénégal yëpp sunu papa jooju. waaw sunu directeur boobu di monsieur Babacar. Mhm. Euh, Touré di ko ñaanu yàlla xaare ko àjjana. Mhm. Mhm. ni ko Ndoye baan duggee rek dañ ci waroon a topp waaye dañuy boole sunu njaal ci bésu Ndoye baan di jaale bu baax sunu xarit sunu soppee sunu rak soxna Ndeye Fatou Touré macha allah yal na yàlla defal sunu baay bu baax bi génn àdduna yal na ko yàlla yóbbu ca aljana yi gën a kawe macha allah am ñu yaakaar ne bu ñu ko ñànnalee incha allah yàlla dana ko nangu Sénégal dëkki jàmm la. Mhm. moo tax ñuy waxtaanee tey waxtaan woo xam ne waxtaan bu am solo la ndax xam ngeen ne médecine dafa am solo waaye nag ñu toll ci benn waxtu boo xam ne dëgg-dëgg ñu ngi dund ñu ñëpp mbas mi mbas mi nag bawul kenn. nee naa bawul borom martaba bawul borom wilaya bawul borom xam-xam bawul kenn moom fu ko neex rek mu ne fa salaamaaleykum waaye yal nañ ci yàlla musal ña nga xam ne itam daf leen dal yal na yàlla woyofal bu baax a baax wax nag dafay tingoom seede moo tax nag ñu woo fi docteur Barnabé bu ko defee dana indi ay leeral yu bare bare salaamu salaamaaleykum waaleykum salaam madame Diagne Eva. Mm. Mm. Euh, maa ngi leen di nuyu bu baax. jërëjëf euh, di nuyu mbokku téléspectateur euh, TFM. Mm-hmm. di nuyu ñoom monsieur bann ak ñëpp ñi nga xam ne man man li ngeen ñëpp ñi teewee ah. jotaay bi. Mm-hmm. di nuyu Sénégal gépp mm. te ngeen may ma nag ma beral nuyoo suma kilifa. Euh, monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale monsieur Abdoulaye Diouf mm-hmm. ndax euh, fépp fu ma nekk di liggéey. Mm-hmm. ak fépp fu ma nekk di bokk ci ay waxtaan itam euh, kaddoom rek laay laay bëgg di wéyal. ndax ñaanal Sénégal yëpp mm-hmm. jàmm. ndegem ndaw lu ko docteur laa itam. fu ma toog damay xalaat su may naataango. muy médecin infirmier sage femme agent d'hygiène assistant travailleurs sociaux. maanaam képp kuy liggéey ministère de la santé et de l'action sociale. Euh, boole ci nag ñi nga xam ne ñoom laa bokkal euh, service euh, muy programme national de lutte contre la tuberculose mm-hmm. nekk fële ci ministère de la santé mm-hmm. ci direction boo xam ne ñu ngi koy ooyee direction de la lutte contre la maladie mm-hmm. te docteur Amadou Doucouré jiite ko jërëjëf boo waxee tuberculose li ma la tooñee sànq ma ni qui est très en phase en link avec la Covid-19 évidemment tuberculose ak Covid-19 ñun ñuy liggéey tuberculose mën nañu wax ne Covid euh, nu mu ñëwee rek dañuy gis ne xamee woon nañ ko neneen. Euh, bu doon missal damay naan Covid 19. tuberculose la buy buy buy daw. tuberculose di Covid 19 buy dox ndànk ndaxte ñoo bokk euh, mandarga yi ñuy feeñoo nit. waaw ñoo bokk ni ñuy wàllantee diggante nit ak nit. waaw ñoo bokk sax tey laboratoire bi nga xam ne mooy génne euh, doomu jàngoro bi. waaw rawatina nag laboratoire euh, programme national lutte contre la tuberculose day génnee doomu jàngoro bi lu wees waxtu ma ndaxte day génnee doomu jàngoro bi ci ñeent fukki simili ak juróom. muy la am solo ndax bu ñu amee ko yore Covid 19 te mu sonn euh, lu ñuy gën a gaaw a xam diagnostic bi day tax ñu gën a mën a gaaw ci ci paj mi. Mm. maanaam ñu gën ko mën a taxaw. Ah. moo tax euh, monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale joxe na ndigal. Mhm. léegi euh, machine boobu. Mhm. Euh, nga xam ne Sénégal amoon na ci lu xawat sakkan. Mhm. dañ koo tas léegi ci fukki région ak ñeent yi. fu nekk am gën ngaa ne benn machine. te ñu ngi si doxal boo xam ne léegi ku amati ñaaw ñu bu njort ne da nga am Covid 19. dootuñu jël prélèvement di dugg oto def ay téeméeri nangami kilomètres. di ko indi fa dëkk ca diwaan boobu. am na machine bu lay jege ñu mën faa xool ndax Covid la wala du Covid. macha allah gis ngeen ko mbokk yi 88 628 22 22 88 628 04 05 encouragement yooyu ak félicitations yi ñuy tekk ci euh, sëñ bi sunu ministre. Abdoulaye Diouf saar maa ngi kaa yónnee ki nga xam ne rek mooy Rokhaya Abdoulaye bu ko defee mu joxal ñu ko ko xam ngeen ne soxna yi tey ku bëgg a jot président Macky Sall mën ngaa yem ci Mariem tout simplement. Mhm. day gën a gaaw soxna ma mi bisimilah. kon nag ñu dégg kon bëgg nañoo jot président. <laughs> les mbé et les moutons les petits enfants ña ngay jooy ca kër <laughs> kon boog dañuy dañuy ñëw doon di daan doon rek kon daal di waxati jërëjëfati Cheikhul Khadim yi tey ak ëllëg sama maam yàlla koy jëloon amiin yaa rabbi di ziyaar mbooleem kilifa diine kilifa di ñaanal sunu soppe ba sunu mm-hmm. maam Cheikh Tidiane Al Maktoum mm-hmm. yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem yaay déggeen chimère yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal nag askan wi yëpp lii ñu dëgmal yàlla nañ ci yegg ak jàmm te yàlla may may ñu dooley poche ak dal gu nu ko mën a defee te indi jàmm ci biir kër yi mm. te kenn ku nekk xam ne la woon daaw bu doon ren ña woon daaw nan defee woon ñu defee ko ren mm. la woon nag bu soppee kooku nekk da ngay tënku ca la xew di dalal bu baax sunu gan gi très bien jërëjëf mami docteur nag ñun ñu ngi waxtaanee médecine traditionnelle ak mm-hmm. médecine moderne ñaar yooyu lan lañ ci war a njëkk xam euh, segam dañuy def bi ci kàllaama Sénégal kon li ñu war a jiital mooy ne buy naan médecine traditionnelle ak médecine moderne. wax mhm. euh, waxeenu tubaab la. Mhm. maanaam tubaab moo ñëw ne moderne. Mm. ak tradition. waaye man ci euh, gis-gisu fajkat. waaw dama naan euh, pexe. Mhm. faj ci nii ak pexe faj ci nee mooy médecine traditionnelle ak médecine. moderne. wa waxin la ci tubaab. waaw waaye ci jëfin mun naa cee wax leneen loo xam ne xëy na euh, mooy li ñuy gën a dund fii ci Sénégal. Mm-hmm. te ni nga ko waxee dafa ñuy won ne euh, ci ci sunu gis-gis bu ndaw yaa ngee nangu ne bii paj la bii paj la. maa ngi koy nangu maa ngi koy dëggal ndax man mii di wax ak yéen. mos naa ci ñaar yi. mos nga ci ñaar soo dee africain wala ngay sénégalais. c'est foo jaar mos ci ñaar yi. Ah, amul benn sénégalais bu musul musul mos ci ñaari yi. Ah, waaw kon bokk ñu ko ci digg di la di la dalalaat jàmm bu baax a baax. Mm-hmm. li ma lay njëkk mooy. Mm. lan moo tax médecine traditionnelle ñu accepté ko fii ci Sénégal. ak ak lu mënti xewit dañ ko accepté population bi accepté nañ ko mën na nañu wax tamit ni état wu Sénégal sax accepté nañ ko parce que suñu demee ba dugal loi mu dem assemblée nationale nañ leen wax ni gouvernement bi accepté nañ ko lan moo tax ñu accepté ko. Euh, mu di laaj bu am solo ndaxte euh, réew boo gis dafa am organisation ak doxalin euh, Sénégal république la am na organisation am na doxalin ci biir organisation ak doxalin boobu. Euh, gis nañu ne li tubaab di ooyee médecine am na euh, euh, fañ ko teg am na itam fañ fañ koy fañ koy jaarale. Mhm. man tey jàpp naa ne askan wo mënti jël. Mhm. te loolu maa ngi ko jàngee bi ma soogee tàmbali médecine fii université Ndakaaru paj moo ànd ak dikkum nit. ci kaw àdduna maanaam ba nit ñëwee ci aduna ca la paj itam ñëwaale ak moom ndax yàlla mi ñu sàkk euh, tut ngeen ko euh, bi ngeen di nuyu suñu kilifa diine yi yàlla daf lay sakk sàkk la ci noo mën a dundee euh, muy filawër la wër noo mën a dundee ci li ngay lekk ak ci li ngay naan waaye noo mën a dundee itam boo feebaree wala boo gaañoo nga war a faju delluwaat ci sa ci sa mën-mën kon xalaatu paj ak e, doxalinu paj dafa ànd nit am amul ku jiitu keneen ki topp ñoo ñëwandoo loolu moo tax man leen bu ñu naan tradition ak moderne xëy na tubaab bi moo ñëw Sénégal Afrique naan li bokk moom moderne lañ koy woowee leneen li ñu koy woowee tradition e, e, dam koy dem ciy waxaat ndax bugguma ñu néewalal ko xëy na nag am na luñ ci war a jubanti rek te ci biir waxtaan bi dinañ ci ñëw ndooy ci laaj bi Euh, boo jëlee li ñuy aada ak cosaan aada ak cosaan euh, day feeñ ci lépp day feeñ ci colin day feeñ euh, ci doxalinu xew-xewu adduna yi waaye day feeñ itam ci boo feebaree biñ gën a nekk xale dañoo na naan góor du jooy maanaam su nekkee ñun xale yu góor yi même boo gaañoo gaañu bu métti bu saf wala nga daanu ñun la góor góor du jooy. biñ demee ba def médecine ma gis ne nit ku ñuul ni muy waxee ne ay li daf may métti ak nit ku weex ni muy waxee ne ay lii daf may métti. Hmm. jigéen ni muy méttiloo ak euh, góor ni muy méttiloo euh, xale ni muy méttiloo hmm. ak mag ni muy méttiloo hmm. dafa wuute. te pourtant yëpp ab métit la. waaye ni ma koy wonee. waaw léeg-léeg day wone suma cosaan. boo boo jëlee euh, olof. dinaan way sama ndey. muy dëgg. Eh, eh, boo jëlee eh, dégg ma pulaar bu baax nag mais comme séeréer laa léeg-léeg damay. waaw kàllaat su ma mbokku tulaay. Uh-huh. yaay seen bu yaay seen bu waaw. waaw ay am na lu ñuy wax bu buy wax lu ko métti foog mu wane loo xal tax ñu xam ne kii pulaar la. Mm-hmm. boo jëlee joolaa bi bu yuuxoo ndax métti am na lu ciy topp buy wane ne. joolaa la joolaa la waaw tubaab bi muy wax soo jëlee séeréer bi na tubaab lay naan oh mon dieu c'est vrai maanaam ku nekk daal ak sa aada ak sa cosaan bi booy wane sa bitit di nga wane waale séeréer jooy waaw séeréer du jooy <laughs> moo tax nga lim ñee muy benn bi mooy aada ak cosaan dafa tax bépp xeet boo jël ci biir aadam ak cosaanam am na nu muy xàmmee ràññee feebar am na nu mu koy faje mm-hmm. boo jëlee mbirum xam-xam maanaam jàng. Uh-huh. Euh, médecine li ñu ay médecine traditionnelle ci waxtaan bi dañ koy jàngale. maanaam da ngay naan boo demee dëkk sangam doomu diw moo donn baayam ca mu mënoon. Uh-huh. kon day jógee ci waajur dem ci doom. Uh-huh. moo tax boobu ak léegi mu mu topp génération di di wéy di wéy. boo jëlee euh, euh, li ñuy wax mbirum expérience. gis nañu feebar yoo xam ne nit am na ko dem médecine moderne wér yeneen feebar yoo xam ne nit am na ko dem euh, médecine euh, traditionnelle mu wër dëgg la man balaa maa doon médecin dama doon sàmm. ay balaa nga doon médecin waaw. bu ñu foxojoon ci ci ci ci àll bi. waaw am nañ suñu benn xar boo xam ne pàppam moo ñu doon moo doon mocc euh, kii suñu foxoj. ba mu ñëwee bu jàng médecine ma gis ne li ñuy ooyee luxation ci tubaab. waaw mhm. ak li ñu ooyee foxoj ci wolof. Ah. wala ci séeréer am na ñu ko doon wooyee. gis naa ne xel bi tax médecine moderne naa def nii ngir delloo yax bi euh, na mu nekkoon. Mhm. xel boobu lañ doon def ci cosaan xëy na ni ñu ko doon wootee moo moo moo moo wuute. Mhm. su ma ko tënkee am na tey ay réew yoo xam ne lañoo euh, dem ba ràññee ne. Mm. aada ak cosaan ak mbirum faj seen diggante xat na xataay boo xam ne. dañ leen boole. soo demee ministère de la santé day am euh, direction de la culture. wala nga mini wala nga dem ministère de la culture mu am direction de la santé. yenn réew yi sax dañu naan ministère de la santé et de la culture. ndax dañoo dañoo dañoo dañoo jaxasoo. Sénégal. xam loolu moo tax. ministère de la santé et de sociale mu ngi wéyal lépp loo xam ne day jóge ci xërëñ. ci technologie li ñuy ay technologie tubaab. Mm. waaye itam dañoo am division santé. Euh, division médecine traditionnelle ndax lépp luy jóge ci paj jaar jaar ci aada ak cosaan Sénégal gën koo am gën ko jëmal kanam su ko defee ku nekk foo feebaree rek fa la gën a jege nga njëkkee foofu waxuma nag ne foo dem mën a faju mais nga njëkkee foofu ka nekk foofu xool la bu la mënee faj mu faj la dëgg la bu la mënta faj ci moom mu boole la ak ku la mën a faj ndax loolu itam tegtal boobu ci biir paj mi la bokk am na ci solo mm-hmm. dinañu dellu siwaat ci yow ak Ndoye Bane alors soxna Mamy lan ngay dolli ci lii euh, docteur Barnabé commencé mm, xanaa di dalal docteur bu baax a baax di ko wax ne ko alhamdulilahi rabbil alamin bi nga ñëwee indil ñu aada ak cosaan mm-hmm. wan ñu ne itam bi jàng jotee jàng nga mm-hmm. bi liggéey ci médecine moderne gi jotee liggéey nga ci waaye ba tey fàttewoo sa aada ak sa cosaan parce que dama naan loolu mooy li laytaay waxtaan bi ndax aada ak cosaan bu nu ko génnee ci sunu bopp du dem ndaxte nit ki da ngay fonk li nga am soo ngay di jëli leneen ñëw teg dëgg loolu ngay jëli comme yow moomoo ko wala xëy na àdduna dox na ñuy wax mondialisation di mm. wax ouverture ba nga war a dem jëli ko mm-hmm. soo ubbee ko itam te dajale woo dara lu baax ci sa bopp wala li jiitu bu la la dikkee daf lay sonal wala mu xatal la te muy dëgg euh, nga wax sànq lu am solo muy aada ak cosaan ak ngëm-ngëm bi nga am ku mel na yow tey bu ñu ko dégluwee jàpp naa ne li ñuy wut dina am mooy ko juboo dina am toog dina am seppi bi ñu bëgg dina am mooy tànn li nga xamante ne mooy rax bi rax ci pepp mi ñu tànn ko teg ngir jur gi war koo mën a dundee te fot du am bëñ bu damm du am kon yow loolu lan lan lan nga ciy xaar jàpp ne bu ñu ko defee booloo bi ñu bëgg dina war a mën a am ndax yéen ci seen bopp yéen ñiy faj ci moderne bi xam ngeen ni ñii fi nekk nii bu ñu leen fi génnee ëllëg mbir mi dina sooxee ndaxte dina yegg foo xamante ne loxo dina dem gémmiñ te du yóbbaale ab tib te su boobaa ñu nekk bitim réew dinañ leen jariñoo maa la wax ne am na fajkati cosaan ak aada yoo xamante ne mm. ña nekk bitim réew ñi ngi leen di roppat benn par benn di leen yóbbu ndax xam nañ ne ñoom léegi lañu yor mënatut a faj seen askan très bien docteur mën naa see indi ñetti euh, ñetti leeral du ma sax wax tontu waaye ay leeral mm-hmm. ndax mbir mi euh, waxtaan la mm-hmm. wax bu pare tànn tànn ah, kay dëgg moom mi ma ko génnee. mais bi dégg <laughs> <laughs> am na dañoo wax ba noppi daal di tànn. Ah, waaw wallaay ndax du damm. moo ko génnee. <laughs> Euh, bi ma si njëkk wax. Hmm. moo di ne euh, wax naa sànq ministère de la santé dafa am euh, kuréel bu fa nekk. Hmm. di toppatoo lépp liy jëmale fajum cosaan ca Euh, fii suñu ministère de la santé et de l'action sociale. ci tubaab ñu ngi ko division de la médecine traditionnelle. xam nga ku nekk nag ku dem nag ba jox la tur jox la bureau jox la jumtuwaay nee la liggéeyal. ak sa dëgg. nangul na la ci gàttal ah? xam boobu leer na nangul na boobu leer na uh-huh. kon Sénégal am na ci gis-gis am na ci fu fum ci taxaw ñaari leeral bi uh-huh. moo di ne euh, li ñuy bokk di toog hmm. moo moo bëreegul xam nga léeg-léeg at bu jot xëy na ren sax euh, na naa ak yeneen at yi. Mhm. mais at bu jot da ngay dégg ñu naan congrès ñëpp ñi jàng gynécologie. Mhm. le congrès des gynécologues. ça peut être gynécologue africain euh, gynécologue du monde. Mhm. ou bien des cardiologues. des ophtalmologues wala des ophtalmologues et de suite. mais ñun tam il faut ñu am euh, doxalin boo xam ne at bu jot dañuy naan benn wala ñaari yoon ci biir at bi ñëpp ñi yëngu ci. pajum cosaan ak ñim ci ñëpp ñi yëngu ci pajum euh, moderne comme noonu lañ ko bëgg a waxee mm-hmm. ñu bokk toog ñaar ñetti fan ah. wëccante xalaat ah kay ah. pourquoi ndax mbir mi waaw ah, yow tey sa xarit waaw mënoo xam ñaata ngay dem këram ci biir at bi ci ci tabaski bii di nga dem këram dina ñëw sa kër waaw euh, ki nga bokkal liggéey wala ki nga bokkal fi ngeen jëm il faut ngeen euh, sóoraale ne léeg ngeen toog. waxtaan def ce am solo. Mhm. lool maanaam connexion mënta ñàkk. ci benn waxtu il faut il faut muy am. maanaam du yem donc ci division médecine traditionnelle euh, bi nga xam ne kilifa gi moom loolu la war a def def na ko maanaam day taxawal fi ñuy liggéeye waaye nag ni ñuy liggéeyee ñun ñii agents yi ñun ñoo ko war a ñoo ko war a dox. mais mais mais mais docteur. Mhm. li ngay wax nii c'est euh, c'est important mais dafa mel ni euh, yow ak ñi nga xam ne ñoom ñooy inter. inter nu mu tudd seen kuréel gi nu mu tudd. ordre des médecins ordre des médecins waaw. Euh, xaw ngeen cee wute gis-gis. Mhm. parce que en 2007 bi de loi bi demee assemblée nationale. Mhm. ñoom dañ jóg yuuxu. daal ni créer ce projet est un crime rampant intenté contre le peuple sénégalais. Mhm. loolu la gars yi waxoon jamono jooju. loolu noonu noo ko gisee. man mii di wax yow. Euh, ordre national des médecins du Sénégal laa bokk. waaw donc ci biir ordre bi laa bokk. kon bisimilah kon li may wax itam. kon bisimilah. Euh, maa ngi ci biir maa ngi ci biir kër gi. waaw donc maa ngi ñëw ci. noo jàngate kon seen réaction. maa ngi ngoog. voilà daanaka li ma doon wax sànq euh, lii bokk na ci. Mhm. maanaam ñu toog waxtaan bu ñu toogee waxtaan bu ñu jógee di dem ku nekk dinañ xam fi nga jëm. Mhm. te ku nekk dinañ xam boo yeggee lan ngay wax foofu. Mhm. loi dafa doon leneen loi luwaa la euh, médecine médecine la mhm. mais médecine euh, dafa am foo xam ne loi daf ko féete ci kaw mhm. loi dafa am foo xam ne bu fa yegee day soxla médecine leeralal ko euh, yoon bi mhm. très bi nag niñ ko bindee ku nekk am na nu mu ko jàngatee mais man lan li dal suma xel moo di ne kàngam yi nga xam ne ñoom ñoo yor lépp li nekk yoon maanaam di bind nan la loi euh, nañ la koy tëralee ak nan lañ koy doxalee ñoom biñ koy bind ci seen xam-xam lañ ko wéer man tey am naa yaakaar ne euh, bu ñaar ñi toogoon ay crime rampa ak yooyu yëpp wax boobu dina dina dëñ parce que moo mooy ñëw ci ñetteel bi ma bëggoon tontu sànq xam dama ne woon ñett. ba waxoon naa ñaar ñetteel bi léegi dem lañ koy booleel. ñetteel bi mooy lan. Mhm. mooy li wax. organisation. maanaam nga ne diw lii mooy sa wareef comme émission bi. diw lii mooy sa cër. diw fii nga war a jaar diw fii nga war a yem. Euh, barke démb damaa mmh. demoon ci benn luuma. waaw euh, ma gis ne léegi ñiy yëngu ci am am du ñëpp mais am na ñoo xam ne dañuy yëngu ci pajum cosaan léegi dañuy enregistré feebar yi nga xam ne ñoom lañuy ñuy faj. Mmh. enregistré garab yi ñuy jëfandikoo ngir faj euh, def ko ci clé euh, brancher ko. Mhm. su ko defee moom day toog dootul wax rajo bi di wax di tourner muy wax di tourner di wax. Mhm. day faj lii day faj lii day faj lii am na garab sangam am na garab sangam am na garab sangam. waa su ma xarit bi mu àndaloon ñëw bu si waa yi déglu ko ñaar ba ñetti simili. waaw mu ne ko yow sa lim bi am na lu des mu ne ko ban feebar mu ne ko. Euh, ban ban garab la ko wax mu ne ko garab bi faj bëri wax rek ñëpp ak xaqataay ndax médecine du def publicité mhm. médecine du jaayoo ah. déedéet xam nga nit nag dafa toll foo xam ne lépp di jëm ci moom boo cay dem da ciy ànd ak euh, suufeelu ndax yàllaa ñu sakk oh. même xam-xam bi nga yaakaar ni ci ngay fajee nit en fait yàlla mooy ubbi sa xel ne la feebar bii la am jox ko garab sangam mhm. yàlla mooy nit mooy indi garab mais yàlla mooy indi wër kon am na yoo xam ne ñu koy doxalee. Hmm. wax dëgg fa yàlla ñun médecin ànduñu ci yéen i wax ci yéen i waxin yi. Hmm. ànduñu ci tam ci yéen i doxalin yi. publicité bi. te yooyu voilà te yooyu. Hmm. buñ toogoon rek ñu dindi ko. li ci des ñii ak ñii dañu gis ne ñu ñoo ko bokk. te ñoo bokk itam lu ñuy wut Sénégal jëm kanam. moom lay wax fii keroog ba ñu dalalee euh, Guèye. Euh, Gandigal ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. di nuyu itam Ndiaye. Euh, may wax ma ni ni médecin yi amee ordre amoon nañu yaakaar bëggoon nañu nga xam ne tradipraticiens yi dañuy am seen fédération bu wóor comme ni ñu ko amee waaye ñoom ci seen biir ña nga xam ne ñoo ci jub te meluñu ñu ne Eva ñu fexe ñooñu lëkkali ko ba nga xam ne tey su ma cliquer rek xam na attends c'est c'est tey ma ni ordre de médecin ñu ne ma paatee ci bokk sàmba ci bokk Demba ci bokk ak yi bërëb sàmba sàngam la dëkk téléphone ma ngi nii fii la dëkk téléphone ma ngi nii ñu ne fédération wu tradipraticien ñu ne nii rek ñoo ci nekk mhm. nga xam ne tey bu ma jógee bëgg tradipraticien damay dem ca fédération bi ñu wax ma parce que boo xoolee yëf bu jafee organisé la. mais pour man loolu noonu xaw na. mais Eva bul fàtte ne bul fàtte ne barki dem boo toog nañ fi xool fi médecin ba mu ubbi woon seen i. dana ci toog ba benn jamono xëy yàlla. <laughs> yàlla a dikk ne yàlla bi fii la war a yem mu yem foofu. mais du wax kii da tontu de. dama bëgg naa mu tontu parce que lépp fi fekkoon. mais xam nga mm. problème bi mooy dafa wax sànq lu am solo. Uh-huh. mooy que publicité bi kenn bëggu ko. Mm-hmm. nit yàlla dina la may xam-xam. Mm-hmm. may la nga gis garab gi nga dem di ko joxe mais jaayu ba ngay jaayu suñu borom wan la ne la comme li mu wane ci Covid 19 bi. wan Chine ak Amérique ne leen toog leen pepp ngeen man du ngeen puissance rien benn puissance moo am muy suñu borom benn star am muy suñu borom mu wan leen loolu ba ñu gis ñun ñi ñu gis kon loolu noonu moom lay wane wanewaat ci boppam que ne wér moom rek moo ko moom. nit ki mooy faj ma yàlla mooy wéral mhm. mais li nga wax ci affaire publicité bi ak seen doxalin xëy na jamono dafa egg foo xam ne ñoom seen xel foofu la toll. Mhm. parce que génn ñu gisuñu ko ñuy waxal. yéen ñi ñu war a waxal bu ñuy wax ak yéen ci jamono bi ñuy wax ak yéen yéen làkk bi ngeen di utiliser ñoom dégguñu ko. Mhm. parce que ñu ci bari jànguñu samay mbokk lan. ñeneen ñi ci des bu ngeen di séminaire ñoom duñu ko yëg duñu ko fekkee. kon kooku bu ngay nee ñu ñu toog mooy que gis nga boo bëggee jëflanteeg moom koy fekk ci niveau mu nekk am na xale boo xam ne rap rek lay déglu. pour baayam wax ak moom faaw baayam def dingal jàkkaarloog moom rab ko mu dégg ne baayam moom la bëgg a waxal am na xale boo xamante ne ni da nga koy woo ci biir néeg yedd ko wax ak moom mu dal am na xale boo xam ne da koy wan ne ko maala jur maala yi li futteeku raag ak moom kon ku ci nekk da koy fekk ci niveau bi mu nekk pour mën a wax mu dégg la ak et nit ki danga koy nawloo nawloo boobu dama jàpp ne ba tey tamit dafa des mooy que ñii dañ leen di wan ne ñun ay tubaab lañu ñun danoo jàngi woon ay at ñun dañuy def lii ñun dañuy def laa am na koo xamante ne xëy na mu ngi def publicité boobu wala mi ngi jaayu mi ngi naagu tey bu ngeen toogoon ak moom benn yoon ñaari yoon dootu ko def parce que dina xam ne publicité boobu noonu surtout nag publicité mensongère dafa am lu bare bari loo xamante ne daf ciy dal. Mhm, mhm. gis nga euh, li ni euh, dafa am solo ba nga xam ne il faut ma ma gaaw a wax ne euh, nañu suñuy mbokk Eh, ñiy yëngu ci médecine traditionnelle baal àq baalati àq ndax suñu naan fajkat cosaan yi fajkat cosaan yi ñu ngi tooñ. du ñëpp te muy dëgg. du ñëpp. Ah, ah. Mm-hmm. kon bu fekkee ñoom ñu ngi déglu nañ nañ ma baal nañ ñu baal. Mm-hmm. ñi ñen ñi la. Mm-hmm. xam la moo tax ma sawar wax ko dañu ne ordre des médecins ordre ci tubaab mooy lan. Mm. mooy luñ luñ teg ci yoon ordre organisation waaw ordre gis nga. booy jàng médecine. waaw ñaari at njëkk yi dañuy jàngal ci tubaab li ñuy wax physiologie ak anatomie. physiologie. mooy yaram bu juddoo nan lay nan lay def di màgg di màgg di màgg ba màgget ba saay. fekk benn feebar jotu ko. d'accord anatomie mooy yaram nan la bindoo. Mhm. ñaata yax ñaata ñaata euh, cellule nag xamuñu ko waxee ci olof. Euh, maanaam lépp liy dem ci yaram daal voilà yëpp ñaata. ah loolu mooy anatomie. Uh-huh. xam nga la moo tax ñu koy njëkk jàngalee ci euh, at bu jiitu ak bi ci médecine. lan moo tax. fekk xamuloo li war lu lu nekkul bu ñëwee wala li warul nekk bu ñëwee doo ko xamee ci tubaab il faut connaître le normal. pour pouvoir reconnaître la normale. <laughs> te muy dëgg. bu fekk ne ordre des médecins amul. waaw kon ki dem ubbi clinique te du médecin kenn du ko ràññee mais ordre moo am. moo tax lu nekkul ci biir ordre bi yàgg yàgg yàgg dina feeñ. Mhm. donc ordre bi am na solo lool euh, tradipraticiens yi. Mm. am nañ seen fédération. man bëri naa ci ay xarit c'est que su tuddee fii kenn dañu foog ne damay def publicité. c'est oh. comme nee naa publicité voilà ñoom la ñuy waxtaanee. exactement ñu ah, ñoom am na si ñoo xam ne xam nañ ma. dëgg la ndax ba ma tàmbalee médecine daanaka ak ñoom laa laa tàmbalee. Mm-hmm. dëgg la euh, te boobu léegi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi bëgg yàgg. yàlla na gën a yàgg. amiin amiin mais ñoom loolu lañ leen di lan lañ leen di reproché ñun la ñu leen wala ñoom. waaw peut-être médecins yi. Hmm. par exemple or des médecins wala médecins yi dans le cadre général lan la ñuy reprocher tradipraticiens yi les voilà wala wala wala médecine traditionnelle. buñ bu fekk mën naa wax ci loo xam ne ñeme naa ci. Mhm. les médecins ne reprochent rien aux tradipraticiens. la médecine moderne. Mhm. ne rien à la médecine traditionnelle. Mhm. xam nga wax fan la jógee. diggante nit ak nit. loolu la man en tout cas ci expérience bi ma dund ba fi ma toll toog nii di wax ak yéen wax bi nit ak nit la maanaam su ma toogee tey wax dëgg euh, nit jël émission rajo wala télé. wala dem journal euh, bi ñuy bind. mën naa lii mën naa lii mën naa lii mën naa lii wax dëgg fa yàlla man niñ ma jàngalee mbirum paj kenn du bàkko kenn du ku ne kenn du ne mën naa yàlla rek mën. te kenn mënut faj lépp sax. te kenn mën ah man de gisaguma ko <laughs> wax dëgg fa yàlla gisaguma ko. dëgg la. Euh, ma ñambaas yi itam ne bu ñu wax médecine traditionnelle euh, bëri na li ñuy fàtte ne ci biir xam-xam boobu li ñu jàng ci diine mu ngi ci. Mhm. ndax am na loo xam ne tey boo ko waxee jëlee ko ci euh, téere diine yi. Mhm. nit ki feebaroon na dina wër. Mhm. dëgg la ñun. Euh, ci biir xam-xamu médecine defam lu ñu ak psychiatrie mais nga wóolu nit ki mën a tax tey nit bu jàkkaarloo ak yow dong wala mu teg la loxo kese sa métit wàññeeku. Hmm. mais physio euh, psychologie lan la nit ki toog di la déglu woo euh, di la déglu di la déglu yow nga am foo xam ne yaa ngi fay sotti lii la métti woon yaa ngi fay sotti lii la tiitaloon nga dem ba gis ngaa oyof. tur yi moo wuute. mais taxawaay bi. ak yéene bi. am na fu bëri fu bëri fu am ñu fa daje. moo tax ma ne nañuy def congrès. séminaire waxtaan médecine traditionnelle médecine moderne léegi ñu gis ne. ay sénégalais lañu. ndax ñaari ñu jàng xam-xam. ñaari nga tudd ñu mel ne nu koy jaawale. maa ngi nuyu sama benn moo yor euh, psychiatrie ak maire bu màgget maa ngi koy nuyu. di ko ñaanal yàlla ko yàlla yëkkati. amiin amiin amiin temps yii waa këram dañ koy faj yóbbu ko hôpital mhm. di ko jox garab muy naan mun leen garab yi ngeen may jox may naan te ngeen maa wóol ndooy baat mhm. ah, kooku sa chéri la moom waaw waa <laughs> këram di ma wër ba gis ma woo ma téléphone wax ma ko ma dem fa mère mhm. bi jóg kott ma jóg mel ni dara jotu ko moom lay wax mooy li kii wax nii démb rek démb mu ne yi ngeen may jox du ma jariñ dara wóol leen. kon mami daal choix wam ci yow la ko mami tam mami ñu ngi koy fóon <laughs> man daal choix li mu wax sànq dafa am <laughs> solo. xam nga gis nga réew mi. Mhm. dañu am ay ay kenu mbaar moo xamante ne eh, ñoo tëye ponki mbaar mi mhm. bu ñu leen roccee rek mbaar mi rës mhm. yàlla daf ñu may lu lu lu kéemaane te jamono bu ñu toll yàlla di ñu won ay miracle yoo xamante ne ci biir askan wi la ñu nekk mooy yàlla may nañu ay mag ñoo xamante ne mën nañu saafara lu nekk ci kattanu yàlla macha allah donc ñooñu dañu war di leen déglu mais man du li ma jàkkaarloog yow mhm. ndax man nam ma supp du ma tax a ngénte ku wasinut mhm. man ku xam ku ma xamul dégg nga ma jërëjëf <laughs> mais dama rafet rafetlu sa xel ak sa xalaat mhm. dama rafetlu sa ni ngay waxee parce que yow bu ñu la dégloo wala ñu jiital la ci mbir mi man gëm naa ne solution bi mën na génnee ci yow ndax xam nga lu tax koo xeeb mu yëpp la te nit ki danga koy jox li mu moom gis nga cof jariñoo mm-hmm. xorom rek nga ko mën a def gor soo cof mu wadd mm-hmm. te ñii da ngeen leen a fekk ñu yor loo xamante ne yow mii ma jàkkaar lool nitu cosaan nga ak aada comme man ni ma ko doonee da ngeen leen a fekk ñu yor loo xam ne dafa dëgër fa mu jógee dafa sori mm-hmm. nee naa Eva barki démb xam-xam li koy mayee dafa metti ndax ñuq ak ñàq la te ñuq ak ñàq xiifa ngi ci biir mar a ngi ci biir raflee ngi ci biir war a tëdd tëddoo ci biir ki nga xam ne dafa demoon jàngi xam nga weexal ginnaaw taxul ndongay dem daara xam-xam la fa wuti woon dellu si dellu si nga ni weexal ginnaaw taxul ndongaa dem daara xam-xam la wuti woon mm-hmm. tey la mu am joo dégg ñu ne tey la mu daj eh. Eh. may tëjee ndooy foo ne foo xamante ne daf ma ñor ndax Cheikh Abdoulaye Mbacke sama sëriñ bu baax ba daf ne woon ma nga nee jar jarta wax silmaxa mm. ndax du ko gis te mi ngi nii wax ko ki yori bët yeb ko la àdduna ñett a fi am mm-hmm. li nga bokk mm-hmm. li nga moom ak li nga doonul dara très bien nag da ngeen cee bokk moom ko ndax ci seen loxo la ko yàlla teg dangeen di seppi ñi ci doonul dara ni jox leen ay poupée ne leen dem leen fooy mbaa ngeen wuti meneen métier ci nit ñi am jàmm <laughs> c'est li mu wax am na solo soo noppee waaw docteur dana dikk ak ñun ci covid bi mhm. ndax ñu ngi ci jëm ci tabaski te dafa mel ni yëf yi eh fi mu mbër sànni covid bi nag nit ñi dañ ci waaw nu mu doon gën waaw waaw wax ci de bépp Sénégalais buy see buy kii ñoom ñëpp fi ne nii Covid bi ay campagne Covid bi. Ah. dañ ko war a arrêté xam nga lu tax. ah ñëpp xam li xew. amul kenn ku ne ci dëkk bi te xamoo lu xew. lu fi waay maanaam lu ma des maa maanaam gars yi li ñuy def. ñoo ko tay tayaatoo ko. Ah, ah. comprendre nga. Mhm. xam nañ ñuy def pour moytu ko. nit ñi wax nañ bay bëgg a dee waxtale yi wax nañu rajo yi wax nañu. gars yi def nañ lépp def lu ma neex a fi nekk. docteur ma delloo la loolu doo nga fi nekk ah. xam yi bëgg a ñi ñuy wax bay bëgg a dee. bàyyi gaa yi mhm. eh, kon eh, nañ bokk jàpp ne eh, bu ñu gënee bëri le li ñuy toog wala ñi li ñaari wet yi di toogandoo lépp li lëndëm. Mhm. mooy pepp mi mu doon sànq ko dindee rek teg mbir bi ci yoon. Mhm. ndax man mii. balaa ñu may jox suma diplôme médecin. dafa am diirum at yoo xam ne war naa koo jàng te saa yu ma jàngee war nañu xayma li ma jàng ndax mën naa ma yéeg di yéeg di yéeg ba ca bi ñuy naan day di soutenance thèse bépp bu ci moy du ma mos am diplôme bi te fekk aw ma diplôme bi loi nee na amoo droit def médecine sinon euh, dañuy euh, dañuy jàpp ne yaa ngi def médecine euh, clandestine mmh. noonu itam wax dëgg segem ñiy faj jaarale ko ci cosaan ak aada. Mhm. ba léegi nit la faj. Mhm. ñoo bokk benn nit bi ñuy faj. Mhm. ñooñu itam nañu xool lépp li nga xam ne méngoo na ak diine méngoo na ak yoon méngoo ak xam-xam maanaam na am ordre rek. ordre euh, médecin. ordre tradipraticien bu amul nag coow dina am wérante dina am xam nga lu tax. c'est que gis nga Eva. waaw wax ji bu nee na la bu amul coow dana am. coow coow coow musu fee jóg coow yaa ngi ñaan na ngeen fi aussi waa ordre euh, des médecins suñu bureau bi. waaw waaw ñoom incha allah dinañ fi ñëw woo nañ leen suba ndax ñun tam lépp lu ñuy doxalee. nee na suba la ñuy teew waa ordre des médecins dina fi ñëw suba. <laughs> mais problème mooy coow dina yàgg am man comprendre naa waa ordre des médecins de. Mhm. comprendre naa leen. Mhm. même su fekkee pire laa dëkk jege ki lool kër Amadou yàlla ak ñoom seen mhm. xam cosaan ak aada xam ni fajum kii traditionnel lu am la. Mm. mais tey jii mënumaa nekk man ah, ah, kii tradipraticien jël xaadim mii mu nekk sama chauffeur. Mm-hmm. jël Babacar mu nekk sama suq boo xam ne moom laay yónni guddeeg bëccëg suba ngoon. Babacar bi waaw dafa dem ñu nekk ak man dix ans. xëy suba Babacar ber ber am mbaaram ah. xaadim ber am mbaaram bokk ci ah. tradipraticiens yi loolu chaque chaque année maanaam dafay mel ni ma ma jege docteur Barnabé rek daal di xëy def ak moom voilà c'est ça léegi nag tey jii suñu doon def sondage chaque année nan leen dina am cent tradipraticiens yu fël la te ji biir kër ah, waaw waaw ci biir kër tradipraticiens yi fa lañ yaru fal nga fële yow dañ la daan yónni yónni su ngoof ak reen xamoo lan ak lan lañ koy composé <coughs> nga jëw gi jóge fee ñëw di concurrence tamit fa fa nga jànge fa nga nekkoon chauffeur wala fa nga nekkoon suqu sëriñ ba waaw maanaam nga ubbi sam baar fe di ko concurrencer di xëcc client yam leen kii xamul dara léegi nag chaque année da gars yi dañuy gën di yokk ñooñu foo leen di utale ordre léegi nag woo leen nga leen nga président tradipraticiens yi ne Sénégal woo leen nga laaj leen ñaata tradipraticiens ñoo am Sénégal kenn mënu la ko wax chaque jour kenn juddu c'est ça la c'est loolu mooy loolu mooy problème boobu nag ñoo fay yi xam nga révélation ci waykat yu ndaw yi maanaam ci gàttal dañuy dem ba ëpp docteur yi fu su ma la waxee dëgg gi daal te docteur ah. mii ñëmewu ko ah. ma mii ñëmewu ko leen lan la <laughs> tradipraticien yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ah. néew mu aayu ñu de am na ñu aay ñu ci ne mais dañoo bariwul comme ni ma naan la journaliste am na ci dëkk bi journaliste yi bari wuñu hmm. max lu fi lu fi bari am dem nga ci qualité caméra am micro fi am soo yoree caméra micro rek ñu ni journaliste nga looloo fi am c'est pas parce que ku nit ñaa ngi lay wër sa biir kër di fees fa dell kër ni ah xam nga dara ñi xam dara ñoo jafe ñoo bariwul. mais tradipraticien bari mais mais mais ndoy baan ndoy baan. ci bari xamuñu dara dara xamuñu li bay lekk bay mbelele li xar lekk na ko ne mugg ak moom. c'est ça. Mm. ña xam dara yomb nañoo xàmmee. waaw ah. ña nga fa ñu nekkoon toog te ba tey jóguñu. Ah. Mm. dandutuwuñu. Mm-hmm. gàdduwuñ seenub saag itam def ko jikkoy xorondom roñ roñi dem roñ roñi ñëw ne xorondom bu aayee tuuru famille. Mm-hmm. fa ñu sancoon fukki at yi ca ginnaaw boo delloo fa nga leen di fekk. Mm-hmm. xam nga yow sax da ngaa yéeween te gore man tey sa laabir gi jaaxal na ma trop. wala docteur la wàll ji. fukki at nga wax yow gis nga fii koo xam ne kër sëriñ ba mu jógee ñaari at la fa def lu mu doon liggéey takki takk mhm. takki xas yi ñuy jaay mhm. moom la doon takk tey moo gën a rëy làmmiñ moo gën a dijj làmmiñ ci réew mi ginnaaw bu ma jàllee ginnaaw man bu ma jàllee très bien da ngay dama doon dem de nit fajal la loo xam ni waaw yow dépensé nga ci ay millions yu baree bari nga dem ci àll bi nit fajal la dara docteur ñu wax nee na da nga dem fii ñu faj la kële la xam naa ci ñoo xam da nga yëkkati junni di ko ko jox. mun la lii ñemewu ma cee fayeeku. Mhm. mu ne sañu ko. na la nen la nit da ngay gis koo xam ne mhm. doomam moo am problème. waaw nga yóbbu ko fa mu faj doom ji. Mm. ba pare laaj la juróom wala fukki dërëm. Mhm. nga yëkkati dix mille ko ko jox nga ne mun la mu ne la dix mille yi koo jël ndax ki ma ko jox daaw ko jël. fii nag ngay oh, ñëw fii ngay dem ci kër tradipraticiens yi wax naa la ko keroog <laughs> tradipraticiens yi kaw laal ñu tegal ko petit déjeuner au lit. Mm. y a deux cent deux mille personnes ci biti. Mm. ku nekk tak dagg bi ticket deux mille. Mm-hmm. ñoom émission bi da nga ko waroon a continuer de. ayca seen ticket ticket deux mille. Oh. tradipraticien baa ngi ca kaw laalam tëdd ko jeegam. Mm-hmm. am benn suqam bu nekk ci buntu bi di ko daggal ay ticket deux mille. Mm-hmm. isa ticket deux mille deux mille personnes ñaata la ci xaalis. ngay ba pare doo gisagul sëriñ bi de nga toog ci rang bi sëriñ bi yeewu sol yérem toog di recevoir par kenn kenn nga ñëw dag nga ticket fee après mu ñu tegal ay butéel ni ñaari butéel yi ngay naan léegi nag da faj gi traitement bi euh, deux cent mille la nga daal yëkkati cinquante mille jox ko semaine nga ñëwaat yëkkati cinquante mille jox ko nga jox ko deux cent mille yëpp muy deux cent mille plus deux mille ca biti doo rax ji dolli xoola doo wér 200000 maanaam ñeent fukki doo wér rax ji ah. dolli nga jël fa feebar boo xam ne soo moytu soo demee hôpital ah. dañ lay seet ñu gis dara ñaati nit ñooy dem hôpital ñun la seet nañu gisuñu dara li gën a garaaw de am na ci ah, butéel yoo xamante de moom danoo fermenté wu da ngay naan di neewi rek te te du ñëpp nag mais nag mais nag du ñëpp mhm. y a des tradipraticiens honnêtes mën li ñuy def mhm. xam nañ leen bu baax a baax a baax mais ñu ñi xamul dara ñu ëpp suñ dee 20 suñ dee vingt cinq personnes ñoo ci xam dara. donc na nit ñi def attention soo demee dans les régions Eva. sa thème bi ça tue de personnes. day day rey ay nit yu baree bari soo demee dans les régions Touba Diourbel Thiès Louga rajo ya fa nekk yépp ñoo ko fees del di fay seen xaalis di publicité. médecine kenn du ko publicité noonu lay waxee téléspectateur bi toog di ñu seetaan di ko fàttali ne euh, garabu mbedd yi itam baaxul nañu ko moytu ah. bu baax a baax. ndax garab dafa am bërëb bu nu koy jaayee boo xam ne lu la ca mënti dool dal di nga mën a dellu ca bërëb ba waaye nag bu dee Evatra moo gàddu saagam rek dikk jaay la garab nga dugal ko sa biir daan naa dégg mag ñiy wax ne xaw ma lan du jaay printania jamonoy printania wees na ba tey looloo fi ne euh, soxna Mia est-ce que mën loo ànd ak yow rek daal di dem directement ca France xool élément bi nga xam ne moom lañu ñu monsieur Louis Ba defal moom itam nekk cadre ci santé sant ci invitation bi euh, thème bi ngay développé tey depuis toute la semaine thème bu am solo la thème bu intéressant la ndax lépp lu aaju ci wërgu-yaram dafa nekk loo xamante ne képp kuy yeewu ak loo mun munti doon loo mun munti am foo munti ne li ngay ñaan yàlla mooy wërgu-yaram moo tax thème bi mooy médecine traditionnelle bi di médecine moderne bi li mu laaj mooy une collaboration pour une prise en charge adéquate de nos ndax ñun Sénégal fu ñu toll gox boo dem am na cosaanam gox boo dem am na la fa maam ya bàyyi gox boo dem am na ñuy faj loolu mënuñ koo weddi donc yow fajkat bi ax loo jàng jàng jàng forcément nos cultures nos valeurs, nos traditions auront toujours un impact sur la prise charge de tes patients maanaam su ma ko jëlee ci gàttal mun nga recevoir benn malade boo xamante ne am na fu mu jaar ba pare je prends juste un exemple koo xam ne il développe un neuropalu boo xam ne léeg-léeg daa am lu muy gis am luy dox ci ay yaramam am ay baat yu muy dégg kooku am na fu mu jaar bi pare c'est parce que gisuñu fa tan moo tax ñu andi la ko suñ la ko andee aussi yow di nga def la ci war mais sans porter un jugement da ngay def li la war par rapport ak li nga jàng tu mais un traitement en cours soo ca paree tu une sensibilisation à faire vis-à-vis de cette famille ndax famille ba balaa ñu la koy andi am na malade ba la mu doon wax am na ay kàddu yu ma doon yëkkati te xëy na kàddu yooyu tooñ na ay nit mbala accusé na ay nit bon nag ku xamul ne feebar la mun na ko jàpp dëgg. donc dinga def traitement boo xamante ne c'est à deux volets le traitement de ton patient également faire ce qu'on appelle une éducation thérapeutique te loolu day baax ci ñun fajkat yi ci ginnaaw loolu mun nga am sa malade également mu nekk sa hôpital nekk sa centre def nga say analyse yëpp doo gis dara def nga tous les traitements aucune amélioration nit ki am na cosaan donc mun nga permettre ñooñu également ñu def seen baaxu maam li ngay wut mooy l'essentiel patient bi am wërgu-yaramam te su ma ko sañee wax tey léeg noonu lañ doon def fa ma nekkoon à Fatick di nga am sa malade terewul ngay gëstu dem ci ay borom xam-xam am luñ la jox am lu ñu la wax mun naa jël exemple ku nekkoon fale ay ñaaxar xam nañ ku baax mooy texey y avait une parfaite collaboration diggante waa dalal xel ak taxay taxay fajum cosaan la doon def itam ab def ci doon laal wax ci ci waa Malango léeg-léeg nga jaaxle am lu la jaaxal ci nit nga woo benn boroom xam-xam ndax lépp dañuy wax rek maye yàlla la le soin et une vocation te ku koy def na koy def ngir yàlla ku koy def doo ko def utum xaalis ci avec humilité te am na ay feebar yu bari également nit ki day ñëw. xëy na feebarum cosaan du ci mun dara feebarum tubaab moo ciy mën même chose tu peux euh, koo xam ne événement day am xëy na mënul supporté événement boobu waa lu mu dëj dëj bu ko jegee day jékki-jékki du yuuxu mbala di xalangu nit ci dinañ foog ne rab la mbala jinne la ndax saa yu xew amee rek noonu la koy defee mais nit aussi mën nañ ko jàppee comme bu bouffée délirante en médecine moderne te am na ay traitement pour loolu ndax nit ki la mu doon la mu xam kenn mënu ko ko diddi ci lu leer wante une collaboration une participation et des informations franches moo tax ñu mën a am li nga xam ne un consensus sur le sur la prise en charge de nos patients te mu nekk fajkatu cosaan bi bala fajkatu hôpital bi ku nekk ci ñoom dafa war a xam ne yaa a une humilité yàlla moo la may xam-xam bi ngay faje yàlla yàlla rek mooy fajkat bu mag bi bon loo munti def loo mun munti def sa xel nay dellu ci yàlla et c'est très important juste exemple yu mun a joxe pour une collaboration bëri na mais malheureusement da ngay gis ñoo xamante ne dañ leen di andi malal la ñuy njëkk a def mooy dingat seen moroom diw xamul dara man maa xam amul kenn kenn ku nekk ci kaw suuf mun a xam lépp gannaaw la la yàlla mayoon loolu amul thème bi lañ ci mun a waxaat bëri na bëri na lool même sur le côté spirituel parce que ci faj bi la bokk loolu dinañ ci gën a xuusaat. xale yi moom euh, boobu benn séréer la moom itam bu dégg wolof euh, cadre la ci santé nekk spécialiste en psychiatrie et itam Euh, doon koo xam ne dafay gérer wàllu addictologie bu nu waxee nag addictologie mooy euh, Eva jàpp dara rek bañ koo bàyyi te léeg-léeg liñ lay tere sax mooy la nga xam ne dalay nasaxal wala dalay gaañ nit dana nekk addict ci benn mbir waaye dina nekk itam addiction bu mag boo xam ne moo ñu jaaxal mooy wàllu drogue tam yooyu yëpp daal moom daf ci yëngatu muy collègue ci docteur Barnabé mi toog. Hmm. bisimilah Barnabé lan nga yëg ko ci sa waxtaanu. Euh, collègue bi. maa ngi koy nuyu bu baax muy euh, muy luy ba. Mhm. Euh, am na ñaari kaddu yoo xam ne ñoom laa gën a jàpp ci li mu wax. benn bi nee na waxtaan bi warul am nëbboo. waaw ñi liggéey ci pajum cosaan. Mhm. ak ñi liggéey ci paj bi nga xam ne xëy na ci anamu tubaab lañ ko jàngee. waaw ndax man ba léegi dama am am jafe-jafe wax médecine traditionnelle wax médecine moderne. dëgg la tourisme waroon naa changé. mais bon loolu du débat bi tey. Mhm. donc nee na waxtaan bi. warul am nëbboo. Euh, ñaareel bi moo di bunt euh, buntu boo ma boo mënti duggee. muy cosaan bi wala muy anamu tubaab bi. li ñuy faj euh, ngeen baal ma matière bi ñuy faj. doomu aadama la. te muy fekkee nag ne ñun ñoo bokk li nga xam ci li ñuy liggéey. yaakaar naa ne bu waxtaan bi gënee dal bu gënee yaatu xol yi gën a set. am na yu bëri yu bari yoo xam tey mu ngi riir euh, ñu koy ñu koy bañ wala ñu koy ñaawlu. Mhm. dina dëñ kii dégg wolof. Mame Linguère di euh, boo ko nee coow la ca teen la. pindub teen ba. waaw gars yi amul baat la. jërëjëf faj ko cosaan dëgg yi. boo junjee rek boo laajtewul. waaw doo xam sax fañ ñu mhm. tax euh, ci wolofam laa bëgg a wéer. tënk boobu. dëgg mhm. la. Mhm. li mu wax lu am solo. waaye waaye dafa am loo loo wax itam mu am solo fajkatu cosaan dëgg. Mhm. boo laajtewu dëgg. doo xam fu mu dëkk moo tax bu ñu ñëwee ba nga xam ne ñu ngi nekk ci ère modernité itam faaw nit ki itam restructuré waat yëppam bu ko defee mu daal di nekk en phase ak ñeneen ñi. muy naan waaw dox ànd na sa jamono. Ah, ah, jeex na fi ñu toll nii. waaw am na yoo xam ne wax dëgg nag jamono ko laaj. incha allah ndax tey foo dem. biir Sénégal. waaw di nga fa fekk la di fa fekk euh, dëkk yu bëri am nañ courant. dëgg dëkk yu bëri am nañ ndox. te muy dëkk yu am nañ loo xam ne bu njëkk ci kaw ci taax yu mag yi dong nga ko doon dégg. Mhm. Euh, euh, dund fii Sénégal suñu fii Sénégal dem na ba yenn jumtuwaay yi. da koy fekk fépp biir Sénégal. Mhm. kon nag kon mel na ni Sénégal dafa jóg di dem ci kaw te yàlla nañu si la jàppale. dem ci kaw dem ci kanam. ci biir loolu itam ni ñuy liggéeyee. foog mu amaat tuuti réorganisation. bu fekkee dañ ko bëgg a wax li gën li ma gën a euh, kii ci li docteur wax mooy que. ñi war a wax bu ñu waxul ñi war ta wax faaw ñu wax. Mhm. ndaxte vide amul fenn yàgg naa la ko wax. gis nga même kaas boo ko raxasee ba ba dëpp ko. nga jàpp na yow kaas bi da ngay gis vide ci biir. Mhm. ngelaw jiitu na la fa bu yàgg. Mhm. li ma la fi doon wax naan nañu jiitu ci suñu doom yi bala ñu ci kenn di jiitu parce que vide du am fenn. dëgg la kon ba tax na. maanaam neen amul. non non li nga gisuta si am mais la ca biir mu nga ca biir te muy dëgg xam nga dañuy wax baatin baatin lu nëbbutu rek la baatin a ngi ci kenn ku nekk ci ñun ñu toog ci li nga nëbbuta kenn xamu ko rek la baatin baa nga foofa mm. mais dafa am ñu koy wanee nii am ñu koy wanee nii mm-hmm. am na ci ñoo xamante ne tey dañu cee dugg ngir wutum dërëm am na ci ñeneen ñoo xamante ne dañu cee dugg ndax ne ndakaaru da leen a wan ginnaaw hmm. jamono dañuy wax ndax ndakaaru kam bugg a xam ak cuq ak neex waa ndakaar dañuy sëpp septem dañuy ŋaañ woo jamono jooju lañu nekkoon ci merengue séeréer yi ngay sànni xeer <laughs> mais mais mais mais docteur il faut ñu jël nag ut ay solution ou bien des initiatives euh, concrètes yoo xam ni hmm. en faveur de la médecine euh, traditionnelle ay initiative waaw très bien hmm. euh, sawar naa cee wax ndax suñu kër gu mag ministère de la santé l'action sociale. Euh, ab fàttali dong la am na division médecine traditionnelle. kon xam kon samp nañu. li des kay mooy yaatal xóotal euh, leeral. muy perspective yi nga xam ne moom la Ndoye Bane wax. ci loolu mën naa ci wax suma gis-gisu médecin de santé publique ndax man mooy suma spécialisation. dëgg fexewoon tey département bu nekk. wala arrondissement bu nekk la moo tax ma taamu département ak arrondissement mooy ki fa nekkal njiitu réew mi boo demee département mooy monsieur le préfet. Mhm. boo demee arrondissement muy monsieur le sous-préfet. dëgg euh, képp kuy liggéey foofu euh, monsieur le préfet ak monsieur le sous-préfet ñoom ñoo fa nekkal. Euh, monsieur le président de la république. Mhm. ñoom ñoo fa nekkal tous les ministres ou chaque ministre du gouvernement donc ñoo fa nekkal ministre de la santé. Mhm. bu ñu demoon ni ñuy xamee nangami dispensaire nangami maternité mi centre de santé ñoo am ah. ci biir arrondissement bi ci biir département bi comme dañoo nekk ci jamono xam ne information la ak moderne mhm. nañ fexe xam ñaata ñaata euh, faj cosaan ñoo fa nekk ak ku nekk lan nga mën maanaam ci fan nga yëngu man balaa ma def médecine balaa ma def santé publique euh, médecine générale laa defoon soo ñëwee siml man ma xool la euh, gis ne da am carie dentaire maanaam bëñ bu am infection mhm. waaw duma la jéem a faj xanaa ma jox la lii seddal sa métit mais damay gaaw a bind kayit ne la demal ci chirurgien dentiste bi moom moo mën a faj lii. fekk nag ñuy jàngal université dañ ñoo ne. bu fekkee mën ngaa faj nit ki faj ko boo ko mën mënta faj te nga mën koo boole ak ka ko mën a faj ba léegi dafa mel ni yow faj nga ko. kon sous préfet bu xamee ne man ci diiwaan bi ci gox bi nga xam ne. Euh, moom moom la ma réew mi dénk diw ak diw ak diw ñoo fi nekk di faj mbirum cosaan diw ak diw ñoo fi infirmier sage-femme kon léegi mu leer di dëgg la uh-huh. waaw muy benn uh-huh. nga def ko arrondissement def ko département uh-huh. léegi ni ñuy waxee euh, ci tubaab pyramide sanitaire maanaam boo jógee ministère de la santé ba ca kër ga yan yoon ak yan kër docteur ñoo fa nekk léegi itam ñu xam ci mbirum pajum cosaan kan moo fi nekk. Uh-huh. te ji biir ñooñu kan moom mën lan. Uh-huh. du doon bàkku de te doon publicité waaye adresse la maanaam ñu xam tey boo jógee fii. Uh-huh. man su ma jógee fii di dem suma bureau. ci mbedd bi dinaa romb ay pano panneaux yi dañuy yore information bind ne fii mooy bitik sangam fii mooy kër sangam. noonu itam euh, monsieur le sous-préfet monsieur le préfet xam ne man ci suma gox bii ma nekk nii diw moo fi faj lii ak am solo. baax bokk na ci perspective deuxième perspective euh, man médecin laa. mais ba ma génnee université ak léegi li ma dem séminaire jàng yeneen xam-xam ak yeneen pexe ci paj mënuma koo compter kon ñi nga xam ne mën nañu benn am na ci ñoo xam ne yàlla may na leen mën nañu faj waaye mën nañu itam joxe xam-xam maanaam mën nañoo jàngale. Mhm. waxuma ne ñu ubbi ñu ubbi école médecine traditionnelle de xëy na yeggaguñ foofu. man xam naa dëkk yoo xam ne am nañ ko. am na dëkk yoo xam ne am nañu université médecine traditionnelle. Mhm. man dem naa fa. xëy na fa mais euh, pajkat traditionnel yi nekkee fii ñu fexe fu ñuy dajee di di yeesalante li ñuy wax partage d'expérience. Mhm. ndaxte euh, sànq wax naa cardiologue. mais même boo de boo demee ci biir cardiologie. am na koo xam ne dafa ne man wetu càmmoñ bi laa gën a aay. kii ne man wetu ndeyjoor bi kii maanaam. xam-xam dafa yaatu yàlla doo yore xam-xam. Mhm. ku nekk ci ñun as tuut. nga sedd <laughs> kon loolu kay nañ ko baaxee suñu biir. jàmmoo suñu biir. donc ci perspective yi formation continue. Mhm. et troisièmement toujours ci perspective vraiment boobu itam euh, dinaa ci ñëwaat fexe ba ñu mën di toog foo xam ne dañu naan feebar bii bu ñëwee. Mhm. man wala feebar bi amoon naa ko nii laa defoon ba faj ko kii ne man de ba ma ko amee nii laa defoon ba faj ko lan moo tax. gis nga boo demee pharmacie. ah amoon naa suma benn communicateur traditionnel nee na kenn du wax pharmacie da wax faj ma ci. est-ce que na faj ma ci kenn du wax pharmacie faj ma ci <laughs> boo demee faj ma ci. garab yi ñu fay jaay ndax mën nga faa fekk garab boo xam ne jógul ci. Euh, gàncax gi ci gàncax bi. c'est ak ah, na jafe. c'est que nañ koy. jëlee soppi ko xeeñal ko nooyal ko. emballage ba rafetal ko. voilà waaye la cay faj dina jafe lool mu doon loo xam ne jógewul ci gàncax bi mu di lan man waa Bawol la Ndoye Bane waa Kayoor gàncax bi nekk Bawol ak gàncax bi nekk Kayoor xam nga wuute na. waaw donte boo demee Kayoor di nga fa fekk gàncax boo xam ne day faj bopp buy miti. Mhm. boo ñëwee Bawol. di nga fekk gàncax boo xam ne day faj bopp buy métti. kon faj fajkat bi nekk Kayoor bu toogee ak fajkat bi nekk euh, Bawol. ne ko ah man de su ma amee bopp buy métti garab sangam laa koy fajee. wala reenu garab sangam laa koy fajee wala xobu garab sangam laa koy faje mu ne man fa ma dëkk reenu garab bii laay jël wala xobu garab bii laay jël loolu bu fekkee yow nga sa xam-xam. waroo koo ragal a waxtaanee surtout koo xam ne dafa jàng comme yow. mais su boobaa problème problème mu dosage la ñuy am nag foofu. mooy xam nga sax damaa formation continue waaw man maa ko xóotalul sax parce que am naa si yeneen xalaat yoo xam ne mhm. bañ a téye kaddu bi bu yàgg moo tax waaye waaye dañu mais mun naa si yow rek la ñuy déglu problème problème mu dosage bi kon mu ñëw si dosage bi uh-huh. kon nañ jàpp ne dugg nañ ci beneen laaj uh-huh. perspective yi euh, ñamal naa leen si as tuut am na yeneen ci yu ñu ci mën a wax euh, médecine traditionnelle maanaam pajum cosaan bu ñu waxoon naroon wax tey lan moo ko néewal doole Euh, Sénégal. Hmm. Euh, wala lan moo tax ñenn ñi di ko ŋàññ. Hmm. waaw jiitu na ci. Hmm. jiitu na ci li nga xam ne euh, boo indee garab tey ni nga ko war a nattee ci booy jël benn yoon wala ñaari yoon ci bés bi ak boo ko walee walee walee jël ayu bés wala boo ko waree jël weer natt boobu wax dëgg fa yàlla amaguñu laboratoire boo xam ne tey moo leen naan. nangam ngay jël bu fekkee xale nga bu am bu am euh, bu amagul fukki at ak juróom walla nangam ngay jël bu fekkee am nga fukki at ak juróom ba juróom-benn fukki at wala nangam ngay jël bu fekkee da nga am juróom-benn fukki at jëm ci kaw. ndax loo ci gis nag wax dëgg fay la dafa am dose. li tubaab di ooyee dose. tey pajum cosaan am nañu problème boobu garab bi baax na waaye ñaata laa ciy jël euh, ba ne bukki ku mënul jàpp. doo lekk ci yàpp bi ñu taaj fii. Hmm. bu ki gis ñii euh, ni ñuy jàppee xam nga euh, loxo euh, kanam bi noppi. Uh-huh. xam nga ki jàngul loolu. bu ki dafa jël paan bi. xëppoo ko xëppoo ko ne bu ëpp itam manqué wul <laughs> waaye nag ci mbirum pañ. gis nga dose bi bu ëppee. Ah. day indi beneen feebar. maanaam mbiru mbiru hmm. boo gisee tey mu bëri. am lambaatu. waaw warul am lambaatu. sinon nekkatuñ ci faj. insuffisance rénale. insurrectionnalité bu bëree Sénégal. Mhm. bokk na ci li ko indi. Mhm. li nga xam ne ñu ngi jël yenn garab yoo xam ne xamuñu ban dose nga ci war a jël. Mhm. wala xamuloo ban diir nga ko war a jël. pourtant ci dëkk Touba bi la ëppee te ñoom ñu jëluñu ay reen. non mais foofu boo xool xam nga feebar boo amee da ngay xaw la cause de la maladie mën na wax la cause ici au Sénégal. boo demee ci yeneen réew yi am nañu insuffisance rénale mais pour d' autres causes. Mhm. parce que causes yi dañoo bëri. Mhm. maanaam du du garab bi mooy la cause. Mhm. mais mais mais fii ñoom praticiens yi yéen lañ lool jëndee ñu ko de. amul amul problème ci ñun parce que ñun. <laughs> Eh. Euh, bu demee ci laboratoire. Euh, boo demee ci ñi nga xam ne seen xam-xam mooy néphrologie. ñoom dañu naan. insuffisance rénale bii lii moo ko indi. te dañ koy dañ koy teg ci firnde. ñoom ñoo yor wàllu diabète. waaw ñoo yor affaire euh, rein ak wàllu roño waaw roño. donc problème mu dosage. Mhm. ak problème mu diir bi nga xam ne ci nga war a jël garab sangam. mais ñetteel bi garab bi ban garab la mënul àndal li ñu ooyee incompatibilité. c'est ndax man soo ñëwee ci man. ma bind la garab balaa ma la bindal loolu ndax yaa ngi jël garab. pour beneen feebar. waaw su ma nee waaw man yan garab la ma xool. am na garab boo xam ne su ma ko gisee fekk bëggoon naa laa bindal bi mu njëkk a xalaat dama koy bàyyi parce que dafa garab yoo xam ne waruñoo daje. ci benn jërëjëf. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ba léegi rek waxtaan bii mën na indi leeral yu bëri waxuma suñu waxtaan bii de mais euh, tradipraticien ak médecin médecin moderne. Mm-hmm. Euh, faral di bokk euh, jotaay. dëgg dina indi njëriñ. ci askanu Sénégal. fee ñu jox la fa yaakaar la fa ay sungufu jox la fa reeni dànk fee ñu jox la nga egg ñetti xeetu garab yëpp nga jëlandoo nga jëlandoo mën na am lu mu def dara malheureusement waaye léegi suñ ñëwaatee ci wàlli sangu sax ndoy ban ña nga xam ne itam boo demee ba tey gëstu ñu ngi yor xëy na ay kàmb ak yooyu ak dañ lay wax ne la lii ak lii ak lii bul ko boole hmm. exactement loolu yàgg na moo tax man la boo demee ci ñi man dëgg pajum cosaan bi waa bëriwuñu wax bëriwuñu yëngu-yëngu te ñoo toog bariwul lu ñuy laaj mm. jërëjëf bariwul lu laaj. man ba ma nekkee xale. te du li ñuy eh, mag ñi nga xam ñoo doon faj. waaw ba léegi maa ngi koy fàttaliku. temps yoo xaalis dafa jafe woon. waaw toujours dañu naan tibbal suuf nga jox ma. Mm-hmm. man ñaata laa tibb suuf. jox ki nga xam ne moom faj. ndeysaan moo tax su ma leen di xalaat su ma xol day naat. te ña nga fa ba léegi toog. ñu ngi ñu ngi leen di sant ñenn ñi dellu nañu. Eh, waaye eh, jàng nañ ci ñoom. dëgg la kay jàng nañ ci moom. moo tax euh, borom kër gi euh, bi ñu fii muy mu daan euh, docteur Mba mereewa ma. dëgg la. loolu dafa jiital psychologie maanaam nga mën a déglu ki lay wax metitam. docteur Mba ma wax nga. dégg nañ ko ñun ñëpp. Mm. waaye nañ ko ci kër gi. dëgg la waaw ko. am na mm. seen bopp mayu leen ñu yëngu ca. Mm. ndax di nga dem ci hôpital akay ba néew lool dëgg ker sa ñàkk fa lool ah. toogin ba metti lool mm-hmm. nga ranga ranga rang ba yokk sa mm-hmm. feebar mm-hmm. parce que nit ku lay jànni di la recette bindal la ordonnance boo xam ne xamuñu sa poos fu mu toll sànni la ko xamoo fu pharmacie ba nekk sa jàngum tubaab kawewut sa feebar tiital na la amoo kenn koo wax ngay toog tolaan ci biir hôpital bi ne picc mu amul yaay. Mm-hmm. accueil itam ci seen côté war ngeen ko xoolaat bu baax a baax mm-hmm. su police demee ba formé ñu war di accueillir nit ñi ci commissariat yi. Mm-hmm. rawatina ci santé. ndax fee da ngay dem xam nga ka nga fay fekk takk der la moom ndoy baane yam. moom sentir gi ci ndigg mi rek te police du bàyyi doole même gisu ko def infraction. mu béj jabaram ak doomam moom yoonam nekku ci. waaye xam nga yéen dafa am lu leen war. ndax man mi fanaanoo métit xëy suba ak hôpital. sama biir rek laa gis. d'accord nit moo bindoo noonu. su ma ñëwee nag fekk fa benn Penda Ndiaye Binta Diop Fat Diop cil ma xam moo xamante ne nii daa fanaan këram di raag ak jëkkëram ba bët set mu xëy suba xëy na ma ngay xalaat natt ba ma ngay xalaat leneen ma ñëw mu di ma jaay dingiteeg jomba ñaaw te ci man li may fay ci lañ koy fay. su ma melee ne moom damay futteeku ñu raat waxtaan wax dëgg ci la. Mhm. xam nga sànq maa doon wax naan li néewal pajum cosaan fii Sénégal. waaw waaye une des grandes qualités maanaam tax médecine traditionnelle aussi ñu accepté ko fii Sénégal. am doole ñoo mën accueil. accueil voilà wax dëgg man moom maa ngi métitlu maa ngi métitlu te di wax dëgg di rus. ci lépp loo xam ne accueil bu doyat di la. ci suñu kër docteur. vraiment ngi koy métitlu bu baax a baax a baax a baax a baax ndax loolu kenn jàngale ko université. kenn jàngale ko école des infirmiers. kenn jàngalew ko école des sage femmes wax dëgg fa yàlla kenn jàngale ko. Ah? moo tax su ma ko déggee wax dëgg maa ngi koy mitlu di ci am kersa médecine traditionnelle ah. aka ñu mën akay ah, boo demee seen kër dañ la bàjjan mhm. kon ñun <laughs> mën nañ faa jàng loolu te muy muy li ma la wax rek bu ñu bokkoon bu ñu bëriwoon li ñuy bokk di toog mu àggali waaw bu ñu bëriwoon bokk li ñuy toog léegi ñu xam ne ñun ñëpp ay sénégalais lañu yéen ñëpp daal xam nga lu ngeen am yéen a bokk lii yéen ñëpp wopp ngeen tudd benn sant ngeen am mhm. mami kon lu ñu waxtaanee jubóo mais kii war fu mu fanaan ndax tàppet ci mbedd mi. keneen ak ki mënta wàccub lalam ngir tëju buntam. xanaa ñor de waru leen a boole ba jeexee mu accueil moom. du hôpital mu am problème nit. si d'accord na loolu c'est nous lu nekk ci ñun la. nga ni nga ni Sénégalais. waaw am problème mu accueillir nit. Mhm. soo see problème mu accueil defoon nañ ko fi tem. ah ne Sénégalais tey. parce que nag dafa am jikko yoo xam ne nañ ci taxaw du thème bi <laughs> waaye nan ko wax gis nga baal soo génnee tuuti defal sondage dem seeti mag ñu jëkk ña mhm. danga man dafa damay wax ne dafa am jikko yoo xam ne jikko yi bees la ci suñu dëkk bi booba bariwul te dama koy wax ca kaw booba Sénégal parce que bu jëkk xamal léegi 14 millions lañu dañoo bari soo demee ci bëri koy bees de hmm. soo demee ci hôpital 14 millions ak li nga xam ne aussi euh, dañuy tukki dem gis leneen feneen ñëw fi senegal hmm. hmm. euh, soppi euh, ak ma joxe ci benn sànq boo déggee ma ma yemale ko ci ko docteur dañoo ne du man dong bokk ba ci moo ci gën Eh, waaye xam naa ne da ngay dem ci yeneen service itam. waaw ay. ah c'est vrai mooy li Ndoye fépp la. ma jox leen li nga xam ne bi ñuy jàng médecine. waaw bi ñuy jàng physiologie. laa gis méngale bi nekk eh, ci ñaar yooyu. boo ñëwoon suñu pas suñu dëkk kese mais ci dëkk cosaan yi. waaw boo yegsee wax boo mën mënti yegsi. la ñuy njëkk a def mooy tampondaal indi jox la. Mm. ba ma demee ba mag la koy jox sukk ba ci suuf. jërëjëf ba ma demee ba mag lañ ma jàngal ne en fait uur ñu nax da ngaa mar dañoo bëggoon xam ndax da boo naanee tuuti dina naan kii dafa xiif. Mhm. comme añ bi pareegul léegi nañ ko defal lu mu mos. Mhm. ndax mu mun a xaar añ. Mhm. est bu fekkee da nga naan lu bëri ñu ne ah kii xiiful dafa sol nañ ko lalal basak mu tëdd nelaw. xoolal ci jaarle ko ci potu ndox. bon sens ni ñu xam yow fan nga tolloo. mais loolu. waaw ah. ña ko doon jàngale. Euh. ñoo bëri tur Sénégal. te sax bu nga dugg kër pour ñu jox la ndox sax day day jafe. Ah, xanaa nga ne may ma ndox. da dugg sax. <laughs> wala léegi doo dugg te li gën a grave li ngay wax ci ci ci accueil yu. médecine traditionnelle waaw. da ñëw taxaw comme nga jëm si TFM. Mm-hmm. nga taxaw ca rond point bële. dañuy yónni seen doom pour mu ñëw jël la. donc loolu rek daral na xel ndax yow fi nga jëm xamoo ko woote nga jéppiwuñ la. Mm-hmm. dañoo yónnee pour ñu ñëw jël si la ki ngay wax kooku dafa bareegul nit dafa siiw poussé wul ki la de waaye ñiy dem ci télé yi di publicité ak euh, yooyu seen kër fees dell. ndoy baat la <laughs> jëli de. ndooy waaw man ba ñuy limu xeet nday ak bàyyi taxul woon. <laughs> xam nga ni ba ñuy wax li mu xeet nday ak bàyyi taxul woon di bu toon ñoom da ngay ñëw bay xeetoo ci kenn. Mm. xam nga ñiy gàmmu ak ñiy raas taxu ñu may wax. Mm. xam nga ñi nga xamante ne nii dañuy wut luñ ne pelam. Mm-hmm. maa fi yàgg a wax ne ki nga ŋàpp di naan ngelaw ndax dina bàyyi caakiri bu saf suukar. Mm. du ko bàyyi. dafa am ñoo xamante ne nii dërëm da leen a tiital ndax dañoo xiifee ci seen biiru yaay alalu àdduna mëntu leen a tax a regg subhanallah mais ñooñu dañoo am ñu leen dooleel mm-hmm. ndax dañoo wut ay darmaan nee naa la Sénégal borom arke boo fi gis muy dem ay naafiqa ko dar dañoo am ay darmaan di leen fay ndoy baan maa mën nangam ku dem ba ciy fay di woy sama maam ku dem ba ciy fay fa nga juddoo dëgërul mm-hmm. gis nga réew poos comme tax a jëndub juddu boo jeexalee de ku yées sa maam mhm. eh, mbir mi nañ koy jàngataat ci fan la nekk mhm. ak ñiy def lan la ñuy def mhm. waaye nee naa la woon man la man la joo gis moo tey ndaya doxalal docteur dégg nga benn rek laay dolli pour jeexal ci mbirum ci mbirum accueil bi benn rek docteur allez-y ah, ndax waxtu bi dab nañu waaye ñu bàyyi la nga nga wax mooy accueil bi mooy euh, ne ci waxtaan yu mel nii waaw soo tuddee ñëpp rek toujours kon da ngay nekkaat ci tooñ bi ndax bo boo demee euh, ci yenni hôpitaux yi boo demee ci yenni euh, service centre de santé wala clinique euh, dafa am ci ñun ñoo xam ne da ngay jàng médecine ba pare dem jàngi beneen science bu ñuy wax management wala marketing mhm. tey am na ay hôpitaux yoo xam ne boo fa demee balaa médecine la am nga xel bu dal ba nga xam ne léegi sax nga fàttali la fa indi woon. la ndax dañu ñu toogal la wala ñu defal la ay fleur wala defal euh, fu sedd wala musique yu bu dal. waaw ba xam ne yow da nga naan fii balaa ma fay génne c'est su ma feebar dina dina tane. c'est vrai yooyu ñu ngi fi. directeur d'hôpitaux yooyu ñu ngi fi. muy dëgg ak ñeneen ak ñeneen. dëgg kon nañu baar xam ne xëy na wax bu gaaw moo tax léegi ñu naan nit ñi nit ñi. waaye dañoo ne dañoo waroon wax ne ñenn ñi. nee na ñu séddale bu boo tollalee ñëpp am ñu gedd seen cër. Ah. ay cër très bien ñëwaatee ci projet de loi bi. ma ne est-ce que projet de loi boobu nga xam ne moom moom la ñu yóbbu woon assemblée ba ba mujj ko rejeté. Mhm. est-ce que projet de loi bi mën na tax euh, ñu assainir euh, li nga xam ne moom moo di euh, milieu rural parisien. très laaj bu am solo. Mhm. gis nga loi bu wéetee. Mhm. amul amul maanaam du gënee résultat. ndaxte loi nit moo koy defar te loi nit moo tax ñu koy defar. Mhm. Mhm. kon buñ foog rek ne loi bi day ñëw mel ni loo xam ne ngay bës bouton rek lépp normal. Mhm. déedéet ñi nga xam ne am nañu lu ñu wax ci bi. am na lu leen ci leerul am luñ ci àndul ak ñi nga xam ne wax dëgg fa tam dañoo jàng loi xam ni ñu koy bindee man am naa yaakaar ne bu ñu toogaatee rek ñëwaat ci yooyu euh, dina dëñ ñu avancé. parce que même constitution. mooy loi bi gën a mag Sénégal. mais léeg-léeg. mu am euh, réew mi dem ba gis ne jamono dox na am na lu soppeeku. moom ñu ci war a yeesalaat. nit ki moom wax dëgg euh, ne ne fii laay dëkk du ma mos a changé. Mmh. loolu de man gëmuma ko bu ñu gisee ne dañoo war a changé ndax mu gën a baax dañoo war a changé ndax njëriñ bi gën a yaatu. kenn warul bañ changement. ma ngoog balaa may dellu rek ku ne wax dernier mot Euh, mi yaa xanaa damay ñëw ci régie bi nag jàkkaarloog yow ndax dafa am sunu benn doom joo xam ni dafa réer mangoog bëgg nañu gis nataalam bu baax a baax waaw kañ kooku nag mi ngi tudd Aminta Diop Aminta Diop mi ngi am euh, ñaar fukki at 20 ans euh, ma nga ma nga réer depuis mois de juin ah 2019 mhm. ñibbisiwul këram ba tey ngeen dimbali nu rek ku ko gis ñuy ñaan yàlla yàlla nit yëpp. Mhm. nga woote ci 77. 798 81 20 77 798 81 20 beneen bi nag di 76 832 71 99 800 76 832 71 99 beneen numéro itam lépp ci ne dañu jaaxle rek 70 741. Euh, 23 38 soxna Aminta mi yal na nu ko yàlla niital nu mu gënee gaaw ci barke sang bu tedd bi très bien mami kon boog mu ngoog euh, ñu bàyyi docteur mu tàggatoo tàggatoo bu dul tàggatoo daanu kontaan lool di la fi dalal incha allah. jërëjëf ñu euh, kontaan nañu. jërëjëf bu baax a baax a baax euh, waxtu bii laay soog a itam monsieur Babacar Touré. ba tey ndaxte biñ nekkee étudiant. Mmh. dañoo jàpp ne moom moo mooy kii fësal presse privée. Mmh. c'est euh, muy dëgg du wala dëgg mais ñun moo ñu marqué. Mmh. bi presse privée di génn Sénégal la première radio privée du Sénégal. ak yeneen. yoo xam ne tey euh, euh, ki jiite réew mi. bëgg ñëpp mën a jot xabaar yi moo tax ku ñëw respecté charte bi. respecté li yoon wax ci mbirum communication. ñu bàyyi la nga ubbi télé bàyyi la nga ubbi rajo nga bàyyi la nga ubbi site internet ak bépp loo xam ne mën na. Euh, yaatal. Euh, xam-xam mën na yaatal euh, xew-xew. yàlla nay doon jàmm. suñ koy nuyu. yéen ñëpp la ñuy nuyu leen delloo askan. monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale bi Covid di soog a ñëw bi muy waaj ñëw sax la tàmbali nee ñu ñaanuñu yàlla feebre dugg si fii Sénégal waaye bu ñëwee Sénégal. presse bi dinañu mën a jàppale bu baax a baax a baax. moo tax yéen ñëpp mën ngeen seede bi Covid duggee Sénégal ak léegi mën naa wax ne ministère de la santé. Mhm. am na sa benn direction boo xam ne léegi mooy direction de la presse. parce que fa la ñuy waxtaanee ñoo bokk lu ñuy wut. njëriñu Sénégal. te muy dëgg njëriñu Sénégal day jaar ci wérgu yaram njëriñu Sénégal day jaar ci koom njëriñu Sénégal day jaar ci jàmm mhm. day jaar ci taw. Mhm. bu baax bu bu doy. li ñu euh, ji mën a sax. ñu mun ko ñu mën cee jëriñoo. kon. ñaan laay tàggoo euh, mbokk yi. amiin euh, ngërëm ak ñaan. Euh, yàlla bi ñu sàkk. <laughs> ku ne si ñun mu sëdd la ci xam-xamam. yàlla na xam-xam boobu doon njëriñ boo xam ne. Sénégal yëpp ñoo koy. ñu ciy jot. incha allah. di dellu nag di nuyu kilifa yi. bu baax a baax jërëjëf jërëjëf xel dafay dem ci opération song daan. Mhm. ndax ba corona duggee ba tey gis nañ itam. wax dëgg yàlla taxawaay bi xam ne borom kër gi taxaw na ko ànd ak ñamu ca war a àndal ba mu dem ba ci ñoom mami Linguère ak Ndoye Bane ak ñoom Eva ñoom Mia Ndour waa régie ñun ñëpp a ngi ci ni mu ko waxee rek yàlla na yàlla woyofal lépp macha allah ñu dund ba di ko nettali Ndoye Bane lan ngay tàgg di féliciter docteur Ngingue euh, di ko féliciter émission bi am na solo yu bari leer leer na fi ñuy suba incha allah ñuy xaar waa ordre des médecins euh, dinañ leen dalal ak ci xam nañ ñu seen kaddu incha suba dañ leen ci xaar di jàllewaat bu baax a baax waa Sud FM ak képp koo xam da ngay journaliste euh, ci réew mi rek euh, di ko jàll président directeur général Youssou ak euh, bépp journaliste bu nekk ci kër gi ak bu ne Sénégal di leen jàlle ba monsieur Babacar Touré yàlla na ko yàlla xaare àjjana mais Eva la moo laay wax rek Sénégal dafa bari ay nit ñu baax ak ay kilifa yu baax ni leen nit ñi di leen rendre hommage di leen wax ñu bàyyi bañ faatu ñu grand homme ci suba ba tey démb ci ba léegi ñi ngi ñuy wax ay ay ay baax-baax yu mu daan def ba muy dund lañ ko waroon di def mais Sénégal dañuy bàyyi ba nga faatu ñun lu nekk ñu lañ koy wax dégg ko bala mu doon neex liñ koy waxal nii mu dégg ko dina tax sax mu gudd fan. am na ñu baax ñu ne ci dëkk bi lu te leer na Sénégal yëpp que nit ñii ay nit ñu baax lañu ñii ñu am njariñ lañ ci réew mi. Mm. yu baax yooyu nag nañ leen koy waxal ñoom ñu koy dégg di ko dund dina tax ñoom ñu gën a gudd fan. Mm. waaye soo bàyyee ba nit ki faatu ku nekk yor sa rajo wala sa télé ubbi ko ñii internet bi rip rip rip judul jeex c'était un grand homme c'était léegi nii c'était un grand homme tu savais que c'était un grand homme mais bi muy dund waxoo ko dañ bàyyi su nit ki di dund ñu koy dóori xeer su nit ki faatoo ñu ne c'était un grand homme c'est ça c'est quel pays amul sens di gërëm nit ko faatu amul sens nit ki gërëm ko bi muy dund mu xam ne moom mi kan ndeke am na njariñ ci at at ci kii bi mm. waaye soo xaaree ba mu faatu nga koy wax c'est moom mu wax ci ngelaw li ñoo yam sunu xel dafay dem te loolu vraiment sunu xel day dem ci président Abdoulaye Wade. Oh, ñu ngi koy ñaanal gudd fan. mu yàgg fi lool te wér. amiin amiin soxla nañ ko fi mm-hmm. lool. amiin amiin amiin amiin doy baan merci beaucoup. Mm-hmm. Euh, mami Linguère. wallaay pays naqaree dundee neex a deewee. tarkal la di jaale de déedéet déedéet déedéet munoo romb. Euh, dellu si tuuti nga ni naqadee dundee. <laughs> neex a deewee lool. subhanallah euh, na leen soppi jikko yi tax xam ne kulli nafsin zaa'iqatul mawti. ah wallaay dëgg yàlla delluwaat rek di waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Babacar Touré ñu ngi koy jaale njabootu Serigne Abdoul Akim Mbacke yëpp ndax ku nekk xam na ne Cheikh Abdoul Akim moom Cheikh mm, euh, Serigne basiiru rek la gëmoon moom la yaakaaroon te léppam def na ko fa kon ñoom itam xam naa tiis bi ñu nekkee démb ba tey ñu ngi leen koy jaale ñoom ñëpp ñëpp nit ki delloo ko njukkal bala mu fiy jógee ndax nag euh, wax dëgg yàllaam ginaar buy topp ña taxani woon bàyyi fa ña nekk ca wàllu wa am na leneen lu xew te ki la abal échelle ba nga mën a yéeg kooku taxawal ne ko jaajëf du la wàññi dara te du la tee nekk ki nga doon delloo njukkal dañu koy def nit bala nu koy def yàlla man nag tey nag damay njukkal koo xamante ne nii wax dëgg yàllaam damaa gis ci yow rek njaay buur ngay jeegu puso ndaxte nag ku sa jëkkër mën di doon te yow may jabar ja ngay jeegul lañ set dara du sotti kon bintu rasool njaay buur maa ngi lay delloo njukkal bu baax a baax doomi baara sidi njaay jooju di ko wax ne ko jàppale nga sama mag ji jóob bu baax a baax a baax yàlla na sa jàmm yàgg di leen waxaat ne mam eh, caata nga ca kër jeeg ja moo ko dengeeñ woo leen ko 77 280 84 15 mu defal leen ci yu baax yi waaye Serigne Fallou borom négoce d'or yow kenn du yow ndax bi ma gisee ak yow ba léegi xam naa ne ndeke jamono ngi dox gis naa xeetu baax baax yépp tabarkàlla docteur am naa mbégte lool lool lool ci jàkkaarloog yow xaw ma lan la njuur tojul sama bopp mais yow toj nga sama bopp te bëgg naa ñu dooleel la jox la kàddu bu baga mag a mag a mag ci lii ngay dox ndax yàlla may la ci ndam jërëjëf mami Linguère li ngeen wax yëpp macha allah zéro faute docteur remercier nañ la bu baax ci sa teewaay te docteur fu mu teew fu ne jàpp leen ne plateau télévision boo am docteur teew am na malaat bu mu yàkkamtee dem faji bu ma mm-hmm. seetoon léegi biir bopp bi am na ku muy xalaat <laughs> loolu la yàlla teg seen ndodd yàlla na woyofal lépp macha allah yàlla sàmmal nu sunu docteurs yi sàmmal nu sunu ministre wax dëgg yàlla ndax mi ngay liggéey itam liggéey bu am solo ñu wax ko yàlla na yàlla dëgëral baaxal Eva nag xam ngeen ne dafa baaxoo ji ànd ak Bamana Couture ñoom dama leen di tuddee ay modèles yu intemporel la ñu am seen modèles yi fu ne lay dem ci àdduna dana dem conférence dem ci ngénte dem ci tuddu dem ci mariage ñu ngi nekk ci 33 821 64 72 may remercier keneen muy rotonde bijouterie bi nga xam ne ma nga nekk fële ca ca ca Ndakaaru ca ca kaw bu ngeen demee rek gis leen remercier également sunu coiffeuse muy 77 648 50 16 Kati Dior Samba moom ma nga ca Gambie ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. di ko ñaanal wér yaayu ñoom siraa sàmba ak Sukeyna biir almadi gi nag bu ma doon nuyoo xam naa ne duma pare suñu dëkkandoo yu baax yi nu ngi leen di nuyu soxna mi yanduur góor baax na jigéen baax na yow itam ñu ngi lay remercier ak waa régie ajaratu Anna Gueye moom itam namm nañu ko loolu ñu ngi koy foon ñaanal ko jàmm moom ak njabootam ku toogoon di nu seetaan ñu ngi lay ñaanal wér gudd fan ak teranga gu sax macha allah ba suba si kattanu sunu borom Manti Traoré merci à